damaa amee bañ ñax bi day ah, newi wóoru te ki jaar na fa mu ne mënul génn mu ne ko ngelaw gi laay ah. <laughs> ba suba cok bala ah, ngaa tardé tekki ni ma bala ngaa tardé bala ngaa tardé dawal mu ne bala ngaa tardé mu ne bala ngaa tardé waaw bañ dafa metti waaw ñun nañ xam rek ndax dëgg la waaw ba xam bañ kaw loolu am na lay waa day photo rek yow na whatsapp na whatsapp yow yaa ngi seetaan yónnee ma ko whatsapp ma xam ne li nga wax dëgg la yàlla yàlla wéral yàlla yàlla may ko tan bu baax moom dara war koo dal euh, di lancer benn message ah sama waa koñ Kër Massar euh, ah. zone de recasement dañu maa yónni ci monsieur ki nga xam ne mooy Adama Sarr nee mu taal lamp yi ndax foofu dafa lëndëm lëndëm crise insécurité totale mm. vraiment Adama yaa ngi seetaan lamp yi bëgg maa ñëwaat samedi te tàkk ah, Adama moom lu mu doon xoolee ba lamp yi di fay kon mooy seen ko dafa lëndëm nag ah, te yaa ngi fa agresseur yaa ngi vraiment faaw nga <laughs> waaw monsieur le fu mu ne. en plus agresseur de. daa ña muy ma fu mu bokk. la bokk wala pouvoir. moom maire grenade. la ñam fay làmp yëpp. monsieur le maire Adama Sarr dafa ñàng de. dafa ñàng kay. suñ ko ñëwee dafa ñàng. non basket bi. boo duggee école primaire bi à droite. Dakar a ngi nii ci ginnaawam. voilà Dakar a ngi nii. mi mi ngi wax ak yow de Boy ngi wax ak yow. Boy Town mooy wax ak yow. yàgg waaw yaa ngi dégg jub primaire bi rek gis lu mel luy tëb ma taf sama portable sama nopp yàq yoon mel lu wuyu téléphone def demi tour lu garaaw laa lay wax yàq yoon yàq yoon yàq yoon bi ngeen dafa kii ngeen ay yàq yoon lu la nga wax non léeg-léeg nga mépp ñu yaakaar na ngay wuyu ñoom ñu ngi lay seetaan de bi yow nga nekk ay jàmbaar fa nekk amul ay li ngay wax nii booy tax waaye cuxu ñun waaw man fi ma juddoo fi ma juddoo hôpital ma juddoo lii dafa juddoo nekk tapet bi dañoo dellu sama yaay ma ko est-ce que ma ragal quoi dafa a ragal ragal ba du ma juddoo ci kii la caaray la dispensaire caaray la ma juddoo caaray après juddoo waat yëpp kër Moussa juddoo caaray ma lii nuyoo la rek de ñoom fi ne ci nuyoo bi ñi ngi leen di bégal ñoom dañuy nuyoo rek tàngaguñ defaguñ dara léegi dafa am benn bu ma bëgg parce que dañu commencé waxtaan ku nekk di weer sa morom léegi bu fekkee ne ay guerrier ngeen lu waaye xamal si morom na ko wax Euh, rubrique la. vraiment di nuyu ñi seetaan. <laughs> ah. ah. bi tey. waaw ah, rubrique bi nga bëgg a jël. <laughs> loo ci góobee da ko gar rubrique sulli mbool. amul problème man sax sullil leen ma. lu waaye xamal moromam na ko wax. non bi tey moom dama la ah, loo gis yow. te war a ñàkk. Eh, eh, eh. bul dugg bul waa Aliba bul bul dugg ñaan. yow eh, Aliba bul wax. Aliba kii man ak moom ñoo nekkandoo woon Thiès mois ferme bokk benn néeg. Ah. kon kay yow noppi rek kon kay eh, eh, kii man moom xaaral ma ñëw kii man moom ñoo tase ci ay. <laughs> toogal kay bul dem toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal ah ñu rek rek kii eh. ak ah, kii euh, kii non eh, non non non non toogal rek toogal garaaw toogal garaaw ah, am na yoo xamante ni kenn du ko wax ci télé waaw moom dafa feebar wérul nature moom waaw daa feebar wérul moom tamit daa te gis nga ba tey li gën a doy waar ci kaa bi mooy ñoom ñaar bokk benn kaawu feebar ñoom ñaar ah, ah? problème kër la kii jënd na kii jënd na bàyyi kii réer kii jënd na bàyyi ko léegi dama ci kii jënd na ki jënd na bàyyi ko. garaawul yow ah non non dama waroon lii wax da jënd wax ji wala xew bi la. non xew bi moo xew bi la kon mun ngaa ko ci moom. non xew bi la mun ngaa nuyoo nga lii ndawtal la wala la. da ngaa nuyoo pare non ma. cokko cokko defal lii pour mu noppi la am solo la. ah mii pour mu noppi la wala. man de bu dee loolu la day noppi. man man Biréy man ki daw ma jox kii de lu ma xamal. xamal naa lu ko bismillah vous avez la parole ñëwal. man mu yaxal. ñëwal kii. du koy moom it ah, xam na xam nga ah, pronom relatif kii yow moom nii laay ah, ne xam na ni. allah. waaw en plein couvre-feu. waaw micro waaw. en plein couvre-feu. waaw yee fitna de. naa point barre en mu des minutes yi des ay 4 minutes 5 minutes. waaw ci couvre-feu commencé. waaw ñu ne couvre-feu waaye Thiès kaay bi ndëkk ñaari kaar. dafa naax waaw. yaa ko toj de tubaari kàlla yaa ko toj. foofu moom da ngay ñëw taxaw foofu mooy léegi dafa point. waa léegi bi yegsi nañ waaw nee ñu dugg mën nga leen a uyu ñu dugg si uyu leen ñu uyu ah, leen ñun suñ plateau bi dañuy waxtaan fii jotaay la jotaay la fii jotaay la de fii jotaay la uyu leen yaa ngi laal point bu bu sensible mais nag mais nag am na fi benn problème bu garaaw après laa leen koy expliquer ah. waaw waaw bu garaaw bu fi am <laughs> après ngeen di comprendre ah doy na waar ah, bul ma filmer bul ma filmer filmeel ñeneen ñi après ma wax leen point bi ah nee ma filmé ma ne ko ah, ah Walf waay ko mu xelli meew mi bu ko jël ma ne ko Walf waay euh, bi tey da laal point boo xamante ni dafa sensible. waaw gis nga ñun ñii ñëpp ñuuxit waaw ñoo bokk benn fréquentation. dëgg la ñoo bokk benn milieu bi ñuy dajee dëgg la booy temps moo wax dëgg yàlla. ku dee ak sa bàmmeel. waaw jaamu yàlla laa ko xamee. ak ay dagg wàcc non non non. non non non sérieusement sérieusement mais boo xamante ni. mais Cheikh day ah, nit la vraiment nit la koo xam ni à part ah. comédie bi waaw ah, à part comédie bi nit <laughs> yari ah, ah li nga xam ne nag. waaw li lay def. waaw mbaay mi li nga xam ci nit loolu. waaw mbaay mi xam naa ne moom rek laa nekk. waaw mbaay ren mu ngi woote rek xam naa ne rek laa nekk. boo xam ne jot da lay seetaan di bëgg. ba léegi nag ba léegi nag waaw waaw mbaay comédien. mbaay comédien dugal ko ci biir. mbaay xanaa xamu ne en direct laa nekk xam na ko. wuy ko wuy ko ah, ah. rek. mbaay kon woote waatal bu dee xam nga. en direct mbaay woote waatal ñu dugal la mbaay. gars yi nee nañ naa la jël. kan la mbaay woo na ko sax ba coupé gis nga ko ko be Baay ah woon kon Mbaay mën ngaa woote dinañ la jël gars yi xam nañ ne xam nga ne en direct lañ nekk boo wootee rek ma jël la am problème Mbaay base yi nga ne léegi teel ci meew Mbaay Mbaay men Mbaay ko Mbaay ku baax ah Mbaay torojo moo Mbaay torojo moo tamit peese waate Mbaay ku baax mbaay moomu tamit. na jàll mbaay moomu tamit bi tey. a ah, nga koo xamal. lu bëri laa ko xamal. ah ah. laa yi boo yëgoon doo woote de. mbaay du woote waat de. mbaay dugg si mbaay dugg si. daw na leen fuuta la toj fuuta la mbaay mbaay dawul de. mbaay wooteel mbaay ngi woote. fuuta la mbaay wooteel dama ko gis toon mbaay wooteel. mbaay dawul de. wooteel ah kii. Cees kaay gii mbaay am na ku mu xamal li tax mbaay di dugg nii. am na ku bëgg a weer moo toj fuuta de. waaw mbaay mbaay mbaay yaa dégg mbaay noo def waa salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaye na sama sàcc bi feeñ na waaye mbaay sa sàcc xanaa du man ah bi yow nit ku baax nga wax ma sàcc bi kana ci plateau waaw kon kan la waay mbaay ku baax woote na ku dogal daanaka dee koy suq di ko gërëm. ñëpp ci plateau boobu. waaw waaw. waaw nit yàlla dëgg woote nii. ah ñooxit moom sama jëwrin la sama xarit la sama kilifa la. dëgg la ndeysaan yow da baax rek. ñooxit moom sama waay la. yow da baax rek. waaye nag avant tout nag damay damay damay gërëm nag Bité ndax nit ku baax a noonu toog ci plateau bi waaw waaw baay dëgg la. yow nit ku baax nga yow moom da ngaa yàgg présenté aar bi. dëgg la jërëjëf jërëjëf Mbaye. waaw waaw waaw damaa génnoon nag nekk mu fi trois mois damaa jàkkaarloog sama lal bi rek na moon tere rek ñëw rek jëm ci Walfadjri na xaaral ma kal ko. ndeysaan xaw tuut nag xaw doo gis Walf. ndax yu bëri xew na fi ci bi nga demee Mbour. xam fan la ne woon maa ngi woon fële maa ngi woon euh, maa ngi woon fële fële nu mu tudd Mali waaye sa coono xeex bépp gis naa ko. Eh, bàyyi leen sama xeex bi. Mali Mali laa toogoon. ah. léegi léegi wax nga ci ñuuxit ñëwal ci ñamaxit la grand artiste ñamaxit nag moom ñamaxit nag moom damaa dee ni ah, ah. xàmmeewul félicitation ak succès ñamaxit nee na ngeen may ko retour nee ngeen may ko retour ñamaxit mhm. ñamaxit daa xàmmeewul ku koy félicité ku naan ko félicité ah <laughs> nee na xàmmeewul félicitation ak félicité. moom damaa xamul moom daa xàmmeewul félicitation ak félicité. ah bon. waaw moom fi ne nii moom. waaw. ndax day ñëw nit ñi naan ko félicité mu deen dañ koy félicité. waaw d'accord léegi bàyyi ñeme ngeen ñëwal ci Cheikh Sarr. Cheikh Sarr nag moom. waaw. Cheikh Sarr nag mooy sama sàcc bi moo ma tafoon fee ca géej waay. Eh, merci beaucoup Mbaye jërëjëf. Eh, amul Mbaye merci beaucoup de day ñëw. may may leen Fuuta yaa toj Fuuta Fuuta. waaw Mbaye keneen. waaw xam nga xam nga dama ne. waaw. ñamaxit daa xamewul ku koy félicité rek ku naan ko félicité. waa waaw moom day ñëw ñu naan ko félicité mu dee dañ koy félicité dañ koy félicité. te te te mooy sa sàcc ba. Cheikh mooy sama sàcc bi day jaay café mooy ñëw denga nga maam ci weeru koor mu dagg sama poche. <laughs> waa léegi booy taawoon nag. booy taawoon nag moom. waaw. booy nag li ma neex ci moom xam nga booy taawoon nag moom booy taawoon dafa dafa miin taawoon bi. waaw dafa miin taawoon dëgg waaw loolu ma doon wax sànq. waaw. sama koñ la doon ñëw di ma seet si. ndeysaan. dëgg la ñëwee gis gars yi toog mu na ay agressé lañ te ñooñu dégg nga maam samay taalibe lañu. mu yaakaar ne ay. mu yaakaar daal di def tapp noppi rek daw laa jox ko ba léegi ci dafa ragal nag. léegi nag des na kenn. cuqu cuq cuq des na cuq. mooy cuq nag cuq nag moom. waaw. waaw cuq nag moom moom moom moom cuq rek laa ko xamee nag moom ndax lu mu dugg day cuq. waaw <laughs> xel mi daal na xel mi daal na xel mi daal na. neex na cuq kon nag andi leen rek ñu cuqalante foofu. kon jeex na kon yow jaaxaanal fi nga jaaxaan a ñu bégal la. kontaan naa jërë ngeen jëf. jërë mbaay ñoo far jaajëf jaajëf. jërëjëf alors lii ça montre que vous êtes. looy na bee gën alaay. la wooy wooy du fatle waay fatla laaw fatla wooy lu ay waay ay jàpp na bey gën allah bi tey xanaa man yonent lañ ma tuddee moo tax dama damay toog ba ca yëg yëg yëg yëg way way way ci moom la tudd sa mission ñu ngi non ñu ngi woon fii yow ñu gis nañ ci. musée kenn egg si. dafa nekk xam nga yéen xam nga yéen xam nga day nekk si benn gàmmu ne xool nga day nekk si benn gàmmu ne. non massa massa massa massa gàmmu bi la nabi nag nabi moom daa am doole. nabi kay ku ko tudd moom boo koy non bu ko jox bu ngeen utiliser pare jox non mouchoir ak nii dañoo wéccoo kii man ci diggante bi am non am benn ngi nii. da ngay jug. voilà mais man aw ma ku dul sama turandoo. waaw way bilaay turandoo maa ngi yow. amuñu ku moom. bilaay bilaay. moo gën ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. ba tax na su may damay yëg di way ci moom. moo tax weeru koor gi mm-hmm. ma ma ma ma ma ma ma ne mënut ñàkk ma ko. Mm. Ah, moom laa am.